guddeem nag képp koo xam ne jullit nga war nga ci def du ma wax jullit sax képp koo xam ne mbindeef la rek ndax képp ku yàlla bindee yonent yàlla Muhammad bind la kon guddeem ñëpp ci war a jàpp fii nag leew nañu seen duñ ci mës a des dellu ginnaaw ndax nekk na gàmm goo xam ne ëpp na téeméeri at ndax maam El Hadj Abdoulaye Niass mu ngi fi ñëw 1910 ñii ne 1911 waaye lu ci mënta am rek ëpp na téeméeri at waaw ah, ba léegi nag ñu ngi koy màggal ci anam bi ñu koy màggalee itam toujours day gën a kawe. ñu beneen bi ma ci bëggoon mooy ci wàllu côté état taxawaay bi mu waroon a taxaw ci kër diini yi te surtout fii nag lew na ñeseen taxawaay boobu nag dafa des lu bëree bari bari ndax euh, ren dafa am noo xam ne nu mu bindoo noo xam ne daaw ko def ndax CRD gàmmu sax nga xam ne daawuñ daan nañ ci convoqué leew na ñeseen ren amul loolu nag man ba may fàttaliku ba léegi c'est une première loolu nag dama xamul lu ko waral te nekk na loo xam ne lu jaaduwul di la jaaduwul jekkul jaaduwul jéem nañ koo ratifié nag waaye nag dafa am loo xam ne moom kenn mënu koo ratifié ndax euh, am na si ñoo xam ne ñoom ñëw nañ service yoo xam ne ñëw nañ def seen liggéey macha allah ku ci mel ne Sonatel ak Senelec ñoom ñëw nañ def seen liggéey nu mu waree waaye yeneen service yi daal ONAS. ñu ngi sant seen gàmmu lew nañu seen ñu indi leen fi ak famille bi nu mu yaatoo moo tax bañ ko fi indee ba nga xam ne benn ci boobu lañ mën a yem ci lañ ca nañ ko delloo. ñun soxlawuñ ko bañ ko delloo itam nag am na kenn ku ci famille bi ku ko jël récupéré ko waaye kooku moom la concerné leew nañu seen daal gisu si boppam beneen bi mooy service d'hygiène seen tuuti produit pompe nañ danañ si tey gisuñu leen wàllu santé gisaguñu leen maire bi moom waxaalewu ko amul dara dara dara loo xam ne def na ko li may wax nag ci turu comité d'organisation bi nga xam ne sëriñ bi moom la mu liggéey. ñu ngi li ma wax li ma xam la ndax lépp lu ñëw sama loxo jaar. man maay jiite organisation bi lépp lu ñëw sama loxo lay jaar kon li ma ci wax loolu moom mooy am leneen lu ci keneen wax xëy na moom dañoo def def daraam ci poosam moo tax muy wax loolu waaye man li may wax mooy intérêt général bi daal moom foofu laay waxee benn service ñaari service ñoo fi def si liggéey mi Sonatel ak Senelec yeneen ñu si des yëpp fi dara dara dara dara dara waaye nag loolu ñun du ñu teree gàmm gàmm daan gàmm ndax euh, dañ daan état dafa jaadu nag fépp foo xam ne population bi mu ngi fay teew mu dugal fa loxoom loolu war ga état la looloo tax ñu koy wax waaye ñun buñ ñëw buñ ñëwee danañ gàmm buñ ñëwul danañ gàmm alhamdulilahi rabil alamin préparation yi fi mu nekk nii lépp yemb na si réglage yi mujj yi lañ nekkoon lépp na ni incha allah balaa ñoo tëdd lépp lépp lépp dina feetee bool ñu ngi a baax euh, ñu ñaan lancé benn message chauffeur yi nga xam ne ñoom ñooy indi gan ñi ñu def ndànk